ben proximité buñ gis yow ak ben rappeur du nom de Omzo Dollar ñu gis ne sa sa gaayen la limite ak mhm. fu vous fréquentez hip hop Galsen ñep di lacc Omzo Dollar anam instant bi ni Omzo Dollar lu muy waaj Omzo Dollar qu'est-ce qu'il nous prépare Omzo Dollar pourquoi ce silence mhm. vu que nak amna la chance tey ma togo ko koy fréquenter man damay laaj an Omzo Dollar mo ngi fi Sénégal gi waaj lu metti di waaj lu metti mhm. metti sax metti yow am nga ci ay écho. waaw lu leer sax. d'accord. Ah, loolu moom mën naa lañ ko wax moom. Euh, waxu la yi kañ lay génn nag vidéo yeeg yooyu. <laughs> waxuma am xam ne sax chaque jour ma kaas parce que. Mhm. def nañ deux vidéos yoo xam ne maa ngi si biir. d'accord bokk naa si vidéo yooyu quoi clip yooyu noonu quoi. d'accord son yëpp presque clip. yoo xamante ne ñun jotoon nañ si ba pare quoi mala ay exclu. yooyu génnagul.